mbokk yi dal nag ak jàmm ci seen euh, site bi Thiès Info ni ñu koy defee ak yéen fan yi yëpp rek lañ koy continuer ci la nga xamante ni rek moom lañ jëlee ci tribunal bu cees ñeel nag tey jii ñu doon àtte benn footballeur bu nga xamante ni ku siiw la waaw footballeur bu siiw la ndeysaan nekk ci diwaanu puut doon fa football yàlla dogal nag ñu jiñ ko ab viol moom nag ki ko ko daanaka ca ca jamono bu muy am xale boobu juróom-ñeent at dong la amoon waaye moom itam ca ca jamono boobu sax daanaka est-ce que amul woon ay vingt-deux ans yooyu moom nag juddoo ci diwaanu Géejawaay moom footballeur bi waaye nag mosu faa footballeur yàlla dogal nag mu ne man kon jot na ma génn sama dëkk Géejawaay dem xooli fa nga xamante ni dinaa fa footballeur waraloon nag mu ñëw ci diwaanu puut bu ñëw ci diwaanu Pout nag ndeysaan di fa fubal di toj ñewetaan yi am ñëpp jàmm ñëpp xam ko foofu ba yàlla natt ko nag ñu daal di koy fay jiiñ mbiru viol xale bi ko ko jiiñ jàpp ni moom moo ko sàkku xale boobu juróom-ñeent at la am ca jamono boobee mais ni mbir yi demee moo di xale bi bi mu jàkkaarloo ak attekat bi àttekat bi daf ko ne naka la mbir yi demee maanaam moom fan la la jëlee ak fan la la jëmee ak itam lan la la wax. xale bi ne dama doon jàngi alxuraan ànd ak samay ñaari xarit te xarit yooyu sax daañu àndi ñoom itam seen version ci biir euh, li ngeen di nettaliwaat nii. xale bi ne daf ma gis may ànd ak sama xarit yi mu woo ma ne ma kaay dama lay yóbbante ma jox la lii nga joxal ma ko sa papa xale bi nee na ma ni ko damay jàngi mu ne ko yow sawa bu la yónnee nga dem te man su ma la yónnee doo dem kaay nee na ñaari xarit yi sax demoon nañ bay ñëw mu ne leen wowuma leen xale bi laaw xale bi nee na mu yóbbuma ci kër bu nga xamante ni daanaka kenn dëkku fa bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ni daal échangé na ko ak attekat bi bi xale bi waxee loolu Euh, àttekat bi laaj ko ne ko lan moo xew foofu mu ne ko dafa tëdd sama kaw wàccaat yéegaat sama kaw wàccaat li may wax ni nag xel a koy mottali mu ne ko ba xam àttekat bi laaj ko ne ko ba xam daf la menacé mu ne ko déedéet menacé wu ma waaye daal téye na ma fa diggante quinze heures ba dix-sept heures yàlla dogal moom xale bi nee na dafa ñibbi seen kër waaye nag bi mu ñibbi seen kër bi mu ñibbi boobu bu ngi sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ni jib na fa moom xale bi da doon soox mu àgg seen kër yaayam ne ko lan moo xew mu ne ko dara daluma waaye lépp nag fekk na xale bi moom kanamam commencé soppeeku ñu tekki ab diir nag mbir mi soog a ab feeñ ba ñu yóbbu xale bi hôpital hôpital nag itam daal di constaté ni que effectivement xale bi yegg nañ ci kawam ba sax ndawam daal dinay dem wala nag après ñoom ñu daal di porter plainte yóbbu mbir mi kii gendarmerie bi gendarmerie jotee loolu daal di jàpp waa ji loolu nag moo waraloon tey ñu leen doon àtte euh, xam nga nag mbir nag bu amee il faut moom ay seede il faut mu itam ay wax ak tontu xale bi newoon naa leen nee na am na ñaari xarit yu nga xamante ni ñoom la àndaloon ki ci jiitu bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ni jib na fa diggante moom ak procureur ak moom ak àttekat bi li mu xamle rek moo di xàmme na waa bu baax a baax kenn ki seede xale yu jigéen yi nga xam ni moo xale bi ñoo àndoon ket maanaam bi ñuy jàngi mu ne xàmmee naa ko waa ji moo woon sama xarit bi ne ko kaay moom sax nee na digg na mu ne xale bi su ma la yónnee nga bañ sawa bu yónnee nga dem te moom sax moo ñu wax dem leen xale bi nee na man tamit noonu laa demee waaye biñ ko laajee ba xam après xale bi ñëw na ket ke daara ja moom séeri bu njëkk bi dafa ne waaw xale bi ñëwoon na ca daara ja ñëw na ca daara ja waaye bi mu ñëwee daal gis naa ni euh, moom kanamam dafa xaw a soppeeku waaw kanamam xaw naa soppeeku tuuti ma laaj ko lan la mu ne ma noo dara xewul nee na après mu yamale foofu wax ji attekat bi laajaat ko ne ko ba xam xale bi ñëw na ca daara ja mu ne ko effectivement ñëw na ca daara ja te ci biir maanaam laaj ak tontu bi nga xamante ni attakat bi mu ngi ko doon laaj ka nga xamante ni moo di xale bi ngi sàkku wala xale bi nga xamante ni dafa jiñ waa ji ni dañ koo saa sa sàkku waa ji daf ko ne maanaam attakat bi daf ko laaj ne ko yow bi nga jógee ci waa yi fan nga dem mu ne ko dama dem suñ kër directement alors que premier CD bi moom li mu wax rek moom moo di euh, xale bi bi mu jógee ci waa ji ñëw na ca daara ja benn ngoog procureur itam daal laaj seede bu njëkk bi am nu mu ko laajee ne ko yow xale bi xam nga rek xaw ko bulefe laaj ko ne ko yow xale bi euh, est-ce que bi mu jugee ca kër ga ñëw na ca daara ja mu ne ko déedéet ñëwul ca daara ja mais après dinaa leen andil tontu bi nga xamante ni moom la procureur jàpp ki divergence yooyu am ñëwaat encore beneen seede mu ñëw ñu ne ko ba xam xam nga waaj yi ñu diñ viol mu ne ko xam naa ko fu mu dëkk mu ne ci koñ ba la nekkoon est-ce que fekkee nga bi bi muy woo xale bu jigéen bi mu ne waa fekkee nañu dañ doon jàngi man diw ak xale bi mu woo xale bi nañu woowu leen diw laa woo kon donc moo yooyu ñëwaat na encore mais bi ñu laajee xale bu jigéen bi Euh, ba xam ba xam ba xam kooku ñëw na ca daara ja foofu moom dafa xaw a mel ni ku ragal te nag ñoom pour vous rappeler que bi bi bi mbiri di am ñu ngi amoon sax ay neuf ans yooyu dix ans yooyu maanaam ay xale lañu woon waral nag moom mi nga xamante ni moom moo di procureur bi mu jëlee kàddu mu ñëwaat maanaam li nga xamante ni moo am ci seen boobu noonu diggante ñaari xale yi mu jàpp ni rek xale yooyu peut-être ngi mën na leen jàpp xam nga te tam xale tamit day fàtte ndax lu amoon 2017 2018 wala 2020 ba 2024 loolu itam pour ñu jàppaat lépp à 100 pour cent du yomb mais procureur li mu jàpp rek moo di bu ñu jëlee point A benn nit wala xale yóbbu ko point B ci te ay waajuram yëguñu foofu nag mën nañ jàpp ni kat li nga xamante ni moom la ñuy toppee waa ji ah, ah mën na mën mën na nekk la am surtout nag fekk la nga xamante ni moom moo di euh, certificat médical bi dafa daal di génn dañ ko daal di wone ni xale bi dañoo daal di yegg kawam mais moom waa ji itam bi ñu ko laajee est-ce que da ngay dëggal li xale di wax moom dafa daal di weddi ndax nee na moom man xaw ma xale yi amaana sax. seen pa peut moo ma bëggal duggal ndax mbiri nawetaan ndax xam naa ni daf ma buggoon recruter peut-être ma bañ waaye daal xam naa ni daal man liñ may wax defuma ko tey defuma ko ëllëg boobee sax la avocat dal daal di jóg moom mi nga xamante ni e, moom lañ daal di giñ viol avocat kat dal di taxaw ne àttekat bi man lenn rek moo ma jaaxal li ñuy wax lépp lépp lépp lépp est-ce que ca enquête ba jot nañoo jël waa ji yóbbu ko ba kër ga nga xamante ni moom lañ doon wax ne foofu foofu la sàkkoo xale yi mais loolu enquêteur dañ ko doon def ndax nag waruñoo jékki-jékki rek ne diw sàngam dafa tëddee xale sàngam ba àgg ci moom te nag waruñoo jël temps pour enquêter ba dem sur les lieux ba xam ba xam li ñuy wax am na mbaa amul loolu sax moo waraloon Euh, avocat bi ne daal moom loolu lépp mën koo gëm dem sax bay bay àgg ci bu ñu sukkandikoo ci kàddu avocat bi mu ne est-ce que tey jii parents yi xam nañ dëgg-dëgg seeni doom ndax nee na moom mënul gëm ni benn yoon boobu nga xamante ni ci la clientam àggee ci xale bu jigéen bi ngir ngir ngir ngir daal di koy sàkku certificat médical bi wane ne kat xale bi daanaka imenam yàqu na bu yàgg nee na moom jàppul ni daal loole war na mën a am mu ne ko est-ce que enquête boobu maanaam li leen waroon ki seen diggante def nañ ko avocat bi itam teg ci ne clientam nit ku siiw la te nit ku siiw nag yenn saa yi doo xam fan la la ndogal di dalee mën nañ la sax tuumaal lu nga xamante ni euh, defuloo ko mu ne moom daal loolu doyu ko mu dem bay na procureur dégg naa ci say ay kàddu sax nga ni pour nañ tëj sama client quinze ans de prison ferme mu ne ko mais monsieur le procureur loolu nag dañ ko war a xoolaat ndax nag enquête de maanaam personnalité loolu de defuñu ko tey jii lan moo leen wóor ni que sama client bi li nga koy maanaam li nga koy toppee moom moo ko def fekk sax boobu euh, ka nga xamante ni moom moo di waajuru xale bu jigéen bi nga xamante ni moom moom lañ jàpp ni dañ koo sàkku euh, moom moom mu ngi fa woon waajuru xale bi moom itam jàkkaarloog attakat bi ñu laaj ko ana lan moo tax nga andi fi sa doom ànd ak moom jël courage pour def lii mu ne man ñëwuma fi ngir yàqal ci dundam waaye dama fi ñëw en tant que baay joo xamante ni dañoo àgg sama kaw doom ma àndi mbir mi ci kanamu yoon ngir ëllëg ci biir képp koo xamante ni maanaam yaa ngi bëgg a def ñaaw ñaawteef boobu nga xam ni kat réew mi am na yoon te nag képp ku nga xamante ni ak nga ci xale boo xamante ni daanaka amagul euh, maanaam mineuragul maanaam majeuragul kookee yoon dal sa kaw mu ne loolu rek moo ma fi tax a ñëw ñu laaj ko ba xam da ngay laaj ndàmpaay mu ne man laaju ma ndàmpaay lenn rek moo ma taxuñ jóg daal moo ñëw fexe ba daal mbir mi yoon setal ko benn ngoog bi ñu laajee moom waa ji euh, nan la dundee mbir mi dafa ni man daal lenn rek laa bëgg euh, moo di yoon def liggéeyam te man xam naa ni defuma waaye bu ñu jëlee ci kàddu yooyu yëpp nag la nga xamante ni euh, moom la procureur wax ne il faut que moom xale bu jigéen bi nga xam ni sax amagul ba fukki at ak juróom-ñett ndax mineur la treize ans sax amagu ko nee na jàpp ne loole yàq dundu xale bi la te nag xale am na nu muy tiite xale am na nuñ koy traumatiser mën na sax bañ a wax les faits tels qu'ils mais lu ci mën ci am nañu xam ni daal àgg nañ ci kawam ndax nag certificat médical hôpital moo koy joxe ab docteur moo koy xaatim bind wane li ci xew kon nag moom daal nee na gannaaw bi nga xamante ni daal seetlu na ni daal e, mbir yooyu yëpp sukkandiku itam ci article trois cent quarante-huit di code pénal moom daal jàpp na ni e, yoon dafa war a def liggéeyam te nag liggéey yoon moo di daal moom waa ji nañ ko daan fukki at ak juróomi kaso waaye taxul nag benn yoon e, avocat bi daal di d'accord ndax moom nee na daal gisul benn preuve bu palpable bi nga xamante ni daal war nañ ko mën a jël ngir sukkandiku ci ngir daan kiliyaanam bi ndax nee na e, amul kenn koo xamante ni dem nga sur les lieux ba gis ni daal ka nga xamante ni moom moo di moom maanaam moom la ñuy wax footballeur boobee moom moo ko def kon nag nee bu doon sax police euh, wala gendarmerie bi nga xamante ni moo yoroon enquête bi dem na sirle lii gëstuwaat xool ana lan moo xew dëgg dëgg dëgg dina gën a neex waaye nag moom gëmul ni daal war nañ ci mën a daanelee ki nga xamante ni moom moo di client am plus mu ne client bu nga xamante ni carrière am daanaka euh, mu ngi ci xortu nen ndax ku tëdd kaso li mu tëdd kaso ñu war laa àttewaat lu toll noonu kon kookee buñ ki jàppul du baax waral sax après président tribunal bi bi mu laajee footballeur bi ne ko yow est-ce que am nga yaakaar ni que kat football fu football bi mën nga ci réussir mu ne ko waaw ndax jeune la ndax ndax nag gis naa ay euh, joueurs yu nga xamante ni daanaka boo xoolee ñaar fukki ak juróom-ñeent la ñu te man nag football rek laa bëgg moom laa gëm moom laa xam te nag ki sama métier lañ ma fekk daal di may tuumaal mu nekk nag mbir mu nga xamante ni procureur joxe na. lii di gis-gisam réquisition moo di daal moom footballeur bi ñu daal di koy tëj fukki at ak juróomi kaso waaye nag ñàkk bokk ak la nga xamante ni daal loolu mooy gis-gisu avocat bi nee na daal moom gisul ni ci mbir yu sew yooyee war nañ cee daaneel ki nga xamante ni moom moo di clientam président tribunal nag gannaaw bu mu leen dégloo ñoom ñëpp dal di joxe rendez-vous le vingt cinq juin bi ñu jëm ngir daal di joxe li nga xamante ni rek moom moo di résultat yi. mbokk yi lii moo xewoon tey tribunal bu Thiès di leen jaajëfal bu baax a baax am mbégte kontaan te jërë jëf.